toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Euh, sëñ bi leeral nañu moom mooy fukkeel bi xalifa ak ñett maam Mor Jaara lépp la ci sëriñ Touba ndax ñoom ñaar rek ñoo bokkoon maam Jaara Bousso ñu dem ci porte parole sëñ bi mu eggaleel ñu li nga muy sëñ Maxtaar mu eggaleel ñu li nga xamante ne nii lépp moom lañ bëgg mu leer ñu fii ci Mbàkke ak waa kër maam Jaara sëñ Matar ñoo ngi lay nuyu. di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ak bis bu màgg bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal ngi fii ci ëttub maam borom saam Mor Jaara di ñaanal xalifaam bi nga xam ne moo fi nekk muy Serigne Cheikh moom Serigne suñ gën ko fee yàggal te mu gën a wér ba mboolem naal yi nga xam ne moom la am wala ay magam amoon ko yépp mu mottali ko te ñu ànd ko ak moom kon ñoo ngi leen di nuyu bu baax. Référence màggal moom murit yépp benn yëg-yëg lañuy am mooy wéyal ndigal loo xam ne bii ci ku baax ki la jóge ndax sëriñ bi. suñ boroom daf koo takkal ay garaad yoo xam ne ni daf koo lëkkale ak i sabab maanaa suñ boroom mënoon na koo tibbal rekk duyal ko ba mu fees <clears throat> na mu ko bëgge te du am yenn sabab suñ boroom mënee na noonu waaye nag am na lum jubloo jàngale ci jëmmi sëriñ bi ndax moom kuutaayul yonent bi sallallahu alayhi wa alihi sallam la moo tax e, bim ñëwee mu boole e, e, mu lëkkale ay mbiram ak sabab sabab yi nga xam ne moom la ñu xam ci boole ko ak tubaab yi ñu génne ko yóbbu ko tumuraankeel ko ba yi ci xew yépp delloosi ko ngir mënuñ ci dara taxul ñu bàyyi ko génnewaat ko yóbbu murtani ngir tumurankeel ko pexe yi sottiwut ñu jële ko fa indi ceyeen ngir jàpp ne foofa isole na fu sori la tumuraanke gi dana mën a amee foofa loolu sottiwut ñu ñëw njaareem jàpp ne dëkku taax la lu ne rek nga xam ne ba bim ba biñ koy mujje gis ci résidence surveillée ci la nekk baw bàyyiwuñ ko benn yoon su ko defee nag loolu xikmab suñ borom la ci mbiram mu boole ko ak ñooñu ngir àdduna mën a jànge ci moom parcours bu riis bi nga xam ne moom la def ci biir parcours bu riis boobu mu def nag mu tëje ko ndigal lu reey li moy suñ borom takkal na ma ay garaad yoo xam ne kat cant gi ma ko bëgg a sant lott naa ci ma sëriñ bi ci màggal lañ gis wala boog bariwut ci lañ gis loo xam ne daf cee lottal boppam mu di ci digle ci eh, ñu sant le ko eh, comme ku ci doon ñaan dimbal kon màggal cosaan li mooy sëriñ bi kat bëgg na bis bi nga xam ne moom la ko suñ boroom boole ak noonam yooyu nga xam ne jàppoon nañ ne seenu prisonnier lañ jàpp boo xam ne bii dañ koy man manee def ci moom lañ bëgg a def sëriñ bi moom gisutoon loolu dafa jàppoon ne ñoom ñii kat ay sabab lañ yoo xam ne nii suñ boroom garaat yi mu koy takkal ci ñoom la koy jaarale te noonu la demee itam te loolu laata muy jëflante ak ñoom rek la ko wax ndax ba mu nekkee ndar la bind xasid ak asiiru te li ni mbir yi deme yépp lu ci bari bind na ko ci biir xasida gi kon suñ boroom wanoon na ko njëlbeen gi ak muj ga yépp su ko defee nag loolu moo waral mu yëg njukkal ak cant gum war a delloo boroomam yëg ne mbooleem koo xam ni kii kat suñ boroom def na mbégum sëriñ bi di sa mbég war nga ko jàppale ci cant googu loolu moo waraloon mooy mu ne bu bis bi dellu seetee te fekk bis bi saa yu dellusee suñ borom day gën a ful may yooyu nga xam ne moom la ko mayoon ci njëlbeen ga mu bëgg nag saa yu bis bi dellusee may yi dana fulu waaye nag cant gi gën a bu ko defee fu waay mën a nekk ci àdduna te mbégum sëriñ bi di sa mbég nga yëg ne bisub sëriñ bi ñëw na ay mayam dolliku na kon nag cant gi dafa war a jolli jëm kaw loolu moo waral eh, ñuy màggal nga xam ne def nañ ko ci ay jamonoom def nañ ko ci jamonoy Cheikh Mamadul Moustapha ku ci ne daa ko def foo mën di nekk ndax cant moom fu ne lañ ko mëne Cheikh Mamadul Fadil nag bëggoon nit ñi ginnaaw am na lu leen lëkkale ñu ñu am fu ñuy daje ngir loolu am na leneen lu muy def ni ko sariya taamoo ci at mu jot nañuy daje ji màkk ngir loolu am na leneen lu muy def Cheikh Mamadul Fadil am gis-gis boobu ne nañ koy daje bu bis bi ñëwatee nañ ñëw tërëliin wi nga xam ne moom la jamono di doxe même ñi tënkuwul ci diine sax seenu mbir buñ bëggee mu jaar ci aw yoon faaw ñu wut kilifa kon day mel ne baatu xalifa moom. dafa nekk lu siiw rek waaye sëriñ bi jëwriñ la ci liggéey bi ñuy liggéeyal borom saam moo ci jëwriñam ànd ko ak njabootuk borom saam gi yépp loolu nag responsabilité la responsabilité moom mënta wayef ndax lépp loo xam ne rek moom lañu war a taxawal ngir dundal ak sàmm ndono li nga xam ne moom la fi borom saam bàyyi lépp ci ndoddam la tege waaye nag li ko wayefal mooy mboolem njabootuk borom saam gi yëpp ak taalibi yépp dañ koy ànd ak moom loolu moo tax lu diis gann la ci wet waaye ma ne sa jàpp ne lu woyof la ni nga ko waxee léegi itam ñi nekk ci wetam du jenn jëmm du ñaari jëmm njaboot gi yëpp la ndax njabootu borom saam gi yëpp fu fi waay nekk rekk moom nga fa nekkal moom ngay déglu ku nekk ci biir kër gi itam danga fee wuutu ñeneen ñi nga xam ne xëy na dañ koo nekkal feneen kon day mel ne lool lépp daal e, li ñu ci mën a déggee rek mooy lépp mën naa woyof ngir ne lu ñépp bokk la te kenn ku ne dugal na ci ab loxoom. waaw Touba ak Mbàkke moom Cheikh Mamadul Fadil dafa waxoon ne aw tur la aku sant ndax Mbàkke Mbàkke yi ñoo daa def fuñ sanc rekk tudde ko Mbàkke na nga dégg ñu ne Mbàkke Jolof Mbàkke Baari Jolof na nga dégg ñu ne Mbàkke Kajoor bi nga xamee ne maam maaram nag amari ngoone ndeela jox na ko suuf si ba mu sanc ko bàyyi fi ay njabootam e, ñu tudde ko Mbàkke Bawal nga xam ne mhm, nga xam ne fii ci suufu Sula la woon Amari Ngoone Ndeela moo joxe woon ndigal ñu jox ko maam biñ ko tuddee Mbàkke ñuy wax Mbàkke ga ca Bawal Mbàkke Bawal kon loolu li muy tekki mooy mboolem mbàkki mbàkki yépp rek fii mooy seen cosaan ci bawol ndax fii la maam maaram sañcoon fii la ay njabootam nekkoon e, ba sëriñ sëriñ bu mag bi ak boroom saam mi nga xam ne moom lañ nekk ci ab ëttam fii lañu fekk baax fii lañu feeñe jamono fii la seeni wayjur nekkoon itam li leen fi jële woon mooy jamono ji nga xamee ne e, ci la Màbba woote wootam boobu nga xam ne moom la woowoon kilifa yi ba ñépp fekk ko Saalum e, ba coow la jeexee itam ñi ëpp ci mbàkki mbàkki yi dañoo ñibbisiwaat fii e, Maam Mor Anta Sali rek moo ci amoon gàllankooru ñëw ngir liggéey bu mu doon def ak Lat ngir taxawul kàddu suñ boroom ci moom e, waaye teewul boroom saam mi nga xam ne moo moo doonoon doomam ju mag ci jamono jooju ndax doonul ab taawam boroom saam amoon na mag muy sëñ Mbàkke Anta sëñ Mbàkke Anta mooy magi maam Cheikh waaye moom dafa teel a nelaw bi ñu demee ba jëmmi jamono nag la borom saam ñëw wuutu fi e, sëñ Mor Anta sëriñ bi itam bi fi sëñ Mor Anta jógee dafa ñibbisiwaat dafa ñibbisiwaat bi mu taxawalee yoon wi ci déwén sa rek dafa ñibbisiwaat fii bim ñëwee fi la nekk am na fi ab diir sanc na fi ay sanc yu fasanti ko ginnaaw bi la fi jógee di sañcaat ngir yaatal ak itam sañc ngir mën a wéet ak taalibe yi muy defar ndax moom e, bari na lum daa jóge fi bërëb dem fi bërëb te li ko waral mooy fu mu nekk ba mu tàmbulee xumb rekk day bàyyi foofa ndax lim bëggoon a def ci waa këram laajul ak xumb loolu moo waral bi mu nekkee Mbàkke ab diir ba ci sancam bu mujj nga xam ne mooy fii tey barabi mbusoobe yi nekk mu joxe ndigal ne nañ jëli nijaayam sëñ sëriñ mbusoobe ma nga woon ca Saalum biñ ko jëlee mu jox ko àddi këram këram gi mu dëkkoon ci la fa tuxoo dem Daaru Salaam ngir booba dem na ba Mbàkke tàmbuli na xumb nit ñi bari nañ te ñu ci baree bari bokkuñ ak ñi nga xam ne mooy njabootu boppam gi nga xam ne ñoom la bëgg a defar loolu moo tax mu jóge woon fi dem Daaru Salaam sanc ko moom itam ba mu defee ba mu demee ba mu tàmbulee xumb mu dem sañc Tuubaa kon Tuubaa Daaru Salaam Mbàkke yooyu yëpp benn la genn njaboot gi la senn suuf si la day fekk rekk sëriñ bi mooy def bu nekkee fii ba méngootut ak lim bëgg a def mu randu dem fee kon muy Touba di Daaru Salaam di yeneen dëkk yiñ xam ci yoon wi yépp fii mu fii lañ juddoo fii mooy seen ndey fii mooy ndey mboolem mboolem mbàkke mbàkke yep rek yi seti mamaram yep fi moy sen seen référence TV la chaîne de l'innovation. wa jere loolu moom mom xamna li ci njëkk moy ñaan suñ borom mu indi ñep ci jamm delo ñep ci jamm def jammam ju yaatu ci yoon wi ba kenn ba ñaam galankor ci ñew gi ak dalu gi liñ leen di wax rek moy doomu aadama moom. lépp lu mu bëgg a jariñu rek na fexe ba xam ko ndax euh, euh, li nga xam moom jariñu jariñu ci dana la yomb te Sëriñ Tuubaa nag jantum njolloor la ku xool gis waaye nag euh, ñu bañ a dugg daal ci mariirandoo mi ñoo xam ne sëriñ bi daal jaamub yàlla la bum def ci moom kiimaanam bu mu def ci ay jaar-jaaram bind yoo xam ne nii ba àddunay tukki histoire du ko fàtte boo xam jaamu yàlla la boo xam ne bii jox na mbooleem kuy doomu aadama leson rawatina kuy nit ku ñuul ndax bim ñëwee la wane ne buñ jàpp ne garaat yi nit ñu weex ñi rekk a koy takk buñ jàpp ne njàmbaar gi ci ñoom rek lay feeñe bim ñëwee lañ gis mu def fi loo xam ne nii gàcceel na ko weex gàcceel na ko ñuul bim ñëwee itam lañ gis koo xam ki yitteem ak pas-pasam moo ko yóbbu ba mu sës rëkk ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam dara doxut digganteem ak moom càll ak murin moom dafa gàtt do jaar ci kenn da nga nan serigne bi ne yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam roy ci mom da nga raw say morom kon nak ñu dikke nonu ham, ko xam fexé xam fim ham jaaroon fexe xam fim tegon tankam fexé xam nyu boromum boroomam jaraloon ñu bayyi xel lolu liko boromum boroomam jaraloon ñu jiima roy ci mom lolu ñu xam ne itam li jamono indi muy internet muy ay média yu classique ay nàngam nga xam ne àdduna bi yépp léegi benn ëtt la fii ñuy waxe ni ma ngay dem xëy na Amérique wala feneen ak feneen jamono bu tëddee noonu nit day day téye boppam rawatina ab murit day téye boppam téye sa bopp nag mooy ngoy ci say valeur fexe ba lu jamono yàgg-yàgg li Serigne Malick Bassine si waxoon ne buñ ne ñi baax wuñ yow da ngay fexé da ngay cey fexé bokk rek buñ ne ñi baax wuñ yow fexel ba bokk ci rek taalibeb serigne touba mom lor rek moy mbiram bu aduna jaxaso ba kenn mënta mucc taalibeb serigne touba mom na fexé bu mucc rek ndax lool la ko serigne bi liggéeyal kon dal lool lañuy denk ñep ci turu kilifa gi ak ci ndigalam muy serigne cheikh ahmadou mbàkke mom Serigne Ismaïl ñu diko ñaanal yalla gën ko fe bayyi moom itam ba mu motuli ay yéeneem yépp di leen sant bu baax di ñaan yalla def tawfeex ci seen liggéey bi yéen tam nañ lool ci eh, ñew gi ak yi ngeen di bëgg a xam ba ko tasaare ci àdduna bi loolu ci liggéeyu Serigne Touba la bokk ndax jamono ko laaj kon ñu ngi di sant bu baax di leen gërëm. Référence TV, la chaîne de l'innovation ah loolu moom daaru salaam moom e, suñ borom moo fay feeñal may sëriñ bi sëriñ bi la suñ borom may ba may ko lu xel dajut jaxase mbiram ak mbirum boppam ba tax na daaru salaam nekk suuf su barkeel di ab sancam bim njëkk sancal boppam ba mu fa jógee itam mu bàyyi fa rakkam ju ju am ngërëm muy maam Cheikh suuf sa itam nekk suuf su barkeel ni ko suufu su Tuubaa nekke ni ko suufu su mbusoo bi gi nekke ndax mbusoo be gi muy fi borom saam tëdd sëriñ bi moo waxoon ne malaake yi laaj ci bàmmeel xamuñu ko kon day mel ne Eh, may sëriñ bi loolu daf cee bokk muy eh, yema mbiram rekk ci ci ay jëmm waaye ba ci béréb yi muy nekk day barkeel te béréb bu barkeel nag xam nañ ko ci sharia moom suñ boroom waxoon na yonent yàlla Muusa alayhi salaam ca alxuraan ba mu ñëwee ci alwaadil muqaddas ne ko summil say dàll fi ngay dugg béréb bu barkel la buñ demee ca màkka ak madina alxaramayni sharifayni lañ leen di tudde kon nag la xew foofa rek moo nekk fii sëriñ suñ sëriñ bi moom lépp lum laal waxuma muy suuf waaye lépp lum laal rek loola yàlla barkeel na ko Référence TV, la chaîne de l'innovation. kon ni ñu ko waxee rekk sëriñ bi ci boppam daana wax ne Mbàkke moo ko gënal ci dëkk yi ngir ne fi la feeñe jamono fi la njëkk a gàmmoo fi la Alaaji Omar Fuuti yu taal fii la ci dëkk bi la doon xeeñtoo xeeñtoo si leerug sëriñ bi lu baree bari ni ma la ko waxee fii la ko defee ba mu sañcee yoon wi ca Mbàkke Kajoor dafa daldi ñibbi siwaat ngir xam ne fii moo di ab dëkkam bi muy randu yitam ci aaneer yi rekk la randu aaneer yi mës sa sori Mbàkke kon loolu bu fekkee ne dafa am ko jàpp ne Mbàkke mooy sënug Tuuba kooku moom xamul li xew ki jàpp loolu day mel ne ki ñëw ne la sa garab gii kat bayil ma bang bayil la fi bànqaas te daggal la reen yi noonu rek la deme xam nga ay reen moom duñ ko gis waaye nag moo yor moo yor garab gi te fii la borom saam nekk dëkk bii la borom saam nekk muy sëriñ Mor moom soxna jaare ci dëkk bii la nekk fii la sëriñ bu soobe nekk mi nga xam ne mooy nijaayu sëriñ bi ak ni mbiram deme te yoon wépp xam ko fii la mag ñu bari nekk fii la sëriñ bi defe lu bari e, fii itam leerug yoonu murit fii la jolle te itam ni nga xam ne eh, Cheikh dul Fadil waxoon na ko ne leeru yoonu murit leer gi muy doxe ba ku ko gis xemmem ko dugg ci te boo ci duggee dootoo bëgg a génn leer googee dinaamoo dinaamoo ba ko yor mi ngi ci néeg borom saam te néeg borom saam bi mi mi ngi mi ngi mbàkke kon fii ki fi nekk moo yor secret sëriñ bi sëriñ bi moo waxoon ne diggam ak boroom saam day mel ne kër kër nga def fee sa néegu daje nga xam ne gan gu ñëw fa nga koy entré fa la ñëpp di daje def fale sa magasin boo xam ne bii nag yi nga gën a fonk yëpp sa secret yëpp ca nga koy denc ne moom mooy néegu daje bi boroom saam nag moo yor secret yi sëriñ bee ko waxante boroom saam mi ngi mbàkke kon nag képp koo xam ne kii dafa jàpp ne mbàkke mooy ab sën la boo xam ne bii kuy def lu bon fi nga jëm si kooku moom dafa xamut xamul sëriñ Touba xamul cosaani sëriñ Touba xamul itam histoire bi histoire serigne touba deug deug ndax ku xam serigne bi da nga wormal dekk bi ngir mom ndax ku ko wormal euh ngir jëmmam loola lu muy bége la te lu ngeureum mëna joggé jëm ci ci kako def loolu mom amul ben sikki sàkk mu dess nak xeyna dafa am lo xamni ni mom at jamono ko indi muy dëkk bi day dëkk bu yàgg niñ ko waxe ba jur dëkk yu bari ñu dem ba e, administration dugg fi ay jàmbur ñëw fii ñu bare bari ñëw fii dëkk si ci dëkk bi ndax xéewal yi xéewal yi suñ boroom lëkkale ak maam maaram akuk njabootam te sëriñ bi gën cee rëy tax na fuñ nekk rekk nit ñépp bab bi ku wuti leen moo tax ñu dem ba dëkk bi ku ne nekk fi. Référence TV sëriñ bi ju fa nekk waaye jàpp ma ne kooku nga jubla wax ndax kooku sëriñ Abdul Xaadir la tudd mi ngi ci biir barabu sëriñ bu soobe bi doomi sëriñ bi la. ya yaakaar naa ki tax ngay wax mooy Serigne Ahmadou Yaddaali moom ma nga ca gannaaw mbusoo bi tuuti foofu la ñuy wax sax mbàkki xewar foofu la borom saam e, am na nag ñu wax ne mooy taawub sëriñ bi ñu bari wax nañ ko am na itam ñu wax leneen waaye daal luñ werante la daal waaye nag eh, bari na ñu jàpp ne mooy taawub sëriñ bi loolu daal bari na ñu ko jàpp muy sëriñ Ahmadul Yaddaali am na nag ñu wax leneen ndax eh, gis nañ ne eh, ñi ngi ko denc ci Mbàkke xëy na booy topp histoire ci tërëlin wi mën naa am ñiy wax ne du taawub sëriñ bi foofu lañ koy jële mooy ci tërëlin wi ñu gis ne e, sëriñ bi njabootam yi nekk xuru Mbàkke dana jamtalu am ci ñu mag e, sëriñ Ahmadul Yaddaali moomu jëmmi taawu sëriñ bi ci boppam moom soxna Faati xanaa bu ñuy wax ci góor ñeeg yooyu la ñuy wax waaye soxna moom mooy mooy sëriñ bi waaw euh, loolu daal luñ luñ werante la waaw. loolu moom ay loolu ay waxtaani ndaw kon daal moom euh, maanaam suñ borom moom asamaan ak suuf ak lu nekk ci diggante bi ci programme boppam la nekk lu fi nekk rekk ay mbindeefama ay jaamama mbindeef menn nag mu fi indi ngir jaxase ay mbir loolu amul sax sens amul amul benn sens ay ay ay ndaw kondaay yu dajaloo di waxtaan nag moom ah, lu ne la ñuy wax waaye moom loolu moom ah, ah, du tee nag moom du tee moom suñ boroom dana takkal ku ne garaat gu ne ci at yu ne ndax garaat gi gën a rëy mooy nubuwa mooy ak yonent te sayiduna Isa ba mu juddoo la ko ko suñ borom takkal keroog ba mu juddoo ba coow la bare ñu joxoñ yaayam yaayam suñ borom daf ko wax yu ne ko yow doo leen tontu liir bee leen di tontu naat boobu mooy bi gën a rëy kon nag Ahmadul Yaddaali moom doy na ko sëkk garaad mooy doomi Sëriñ Tuubaa la loolu nag moom garaat mënu koo féete kaw ba tax na nag ah xëy nañu yokk ci yeneen yu bëree bëri yoo xam ne ni moom comme niñ ko waxee rek ah, waaw loolu moom am ci naqar wu sut wi nga wax rek lañ ci lañ ci am ndax loolu moom gàkkal sëñ Tuubaa la hmm, bu fekkee ne mënees na ko mënees na ko waxee noonu. ndax eh, nit bu fekkee ne dangaa dem fekk fay cosaanam sëriñ bi gis na ñaari xasida yum def ci mbàkke yoo xam ne nii lim wax ci dëkk bi eh, mënees naa wax ne néewaana waxu ko ci benn dëkk xanaa Tuubaa te boo demee ci Matlabul Fawzayni sax bari na fi bayit yoo xam ne nii njëkkoon na ko wax ci xasida gi mu defoon ci Mbàkke door koo baamtuwaat foofa pour nga xam ne sëriñ bi moom yemaliwut ak Mbàkke ak dara dadaa wax ne Mbàkke moo ko gënal ci dëkk yépp toute toute l'actualité à temps réel à temps réel sur Référence TV Référence TV la chaîne de l'innovation